waaw waaw. yow jërëjëf mën ci wàllu bëgg xam ñoo ci yow kontaan ak taw feex bu baax baax. parce que xam nga xam nga lii. abu bu may seetaan lii gis. émission nga am classe am xorom. ba pare mag ñi mën koo seetaan ndaw ñi mën koo seetaan am am ñu ngi ni toog kenn ku si nekk kilifa nga ci li nga nekk dëgg la mais bi may ñëw barki Seydina Mohamed démb lan ma woo tegu ma baat mm-hmm. man ku ma respecté ma respecté la ku ma respecté wul ma respecté la dëgg la te ñii li def nii lii mooy émission foo rek mm-hmm. dañ lay laaj ci ful la mm-hmm. waxal la ci ful la ba pare nag ndeysaan feccal la kon fii jàmm rek a fi am Sénégal yëpp kontaan na titi nee mi ngi lay seetaan di la encouragé di la wax ni moom da lay déglu ndaanaan la titi nee na nag dina ñëw moom it tànn coof bi muy jël fii titi titi moom moom suma yaay la suma xarit la papa Ndiaye maa ngi lay titi ngeen ma koy jox rek waaw dina titi waay waaw titi daal neex na ma man <laughs> tafa man titi jëla titi man titi fa waaw jëla titi sama na fa des daal <laughs> waaw na fa des bakkan lay laaj bakkan lay laaj bi titi abu ci bolo la Eh, eh, eh, amatuma jabar. loolu Ibou Ndour. Titi jar na de mais pourquoi pas Titi et Papa Ndiaye Thiou. non non non non non Titi. <laughs> xanaa Abdou dafa bëgg a wan naan non waaw. <laughs> bonne solution la léegi léegi da baal après ñu waxtaane ko ndax kooku ngeen waxtaane sama ndey.